Kol bagi toy mudak di joy Sokolaje muna mom la bagay Sunyo ko andilul mom dudun de bane Dak da fakham ki mudo jimom Yana sai muto dilate Fan lai muje Bebe Xam naa ne danga bëgg te yow tamit man rek nga bëgg xam naa li ngay def nii yëpp da koy def rek mais nekkul na danga ma bañ tey jour bi 31 décembre duma la ci bëgg a bégeel sama benn copain dafa organiser benn fête te ñu fay ñëw ñëpp dañu ànd ak seen couple tey dama bëggoon bu mu ñu jotee ñu ñëw jët si la ñu ànd mën ak yow parce que olof Njaay dafay wax nit boo ko bëggee faaw nga wane ko te man dama pare pour wane la. eh El Hadj yow est que ça va yow nga lu rus wala yow gàcce dina la rey dix mille francs dix mille du yére du dàll du greffage gis nga moom. mais nit ki lim li am rek lay duggee marché mu baax sax ko am mbaxalu jën bu neex sax doo ko am dama sonal am na dix francs hmm? yoo ya, xam si bàyyi laa jëm yow. la tax nga bëgg ba gën metti sama àdduna yow yaa ngi koy def lu toll ni 31 décembre ñëpp jigéen may tëdd sama lal bii nga dama sonal hmm? mënuma boole ndëpp xool bu tàng xool di ko benn bu ma sonal Beh, sama ba benn affaire gis nga waa premier moo gën a neex looy gis ci àdduna gis nga film xam nga ya? lan moo ci gën a neex laaj ma ko bandanos li ci biir bandanos boobu noonu lu ñuy jël lépp loo xam ne moo gën a neex ci film bi ñu dugal ko ci ko defee yow la personne boo koy setaan dëkk fi yàqante teg film bi waaw mais gis nga yow moom mu ñëw bañ taal bi taal yi dañ def deux mille vingt su mën ba taf la sama wet nga jàkkaarloo ko man ma ma xoje laa xam ma ma dammati laa dina tiiree nga tege ne fa laa yem ma tëll la ba ca kaw nga tege ne doo wàcc ma taaw la nga wàcc samay loxo gis nga àjjana xam nga gars yi dañ koy dégg mais man maay ku la yóbbu dinaa la def loo xam ne lu juddoo ba tey jigéen mosula koo def pause pause sama yaram fépp a ngi jub rek yow soo arrêté wul li nga def nii sa kawlal bi laa yàq. mais lii dafa ñam bu ëpp. lii dañuy jël temps savouré ko lii nga wax nii suñ ko toppee buñ ko accéléré. Hmm. biñ ci war am ko am. Hmm. amuloo may may xiifal bi. Hmm. xam nga fii xiifal. neex a ngi noonu. mais may ma ma xiifal. affaire kenn du ko yaa xam te yow li ma tegal nii xiifal. <laughs> ko defee booy ñuluk dama koy sentir. Mhm. ngay sóor dama koy sentir ngay rusé dama koy sentir. nga xamante ni soo ko yekkee loolu teg ma am envie coob ko mhm. mais nañ def si sinon day metti si man. man damaa bëgg góor bu am dégg-dégg. Ah. te na xale yu yi nga xam loolu ñu naan ecc ecc ecc. mais su la yaa. Ah. yaa Sa mama ya? Iya, hmm. <laughs> kembali. Ayo kali ya? hmm, mau mo hmm, <laughs> ya, ya. Kamu mo mo. mau mo tanggap to ko kayak wang deh lah Kasama ni lolo mo mau na tiya. Isa ko udah lagi Kamu udah nih. Asahan ini. ambil dañu war a mama juga ma pelan di dem planifier fi sih tuh aku enjoy Kian punya darah sih mana nih Yes. sûr léegi léegi mon amour. bon chouchou ni nga jógee. ma bëgg a jógee. nga bien sûr. محمد سمجنا من دمنا ba ci tam lu dimbale ma ko lu jàppale ma ñu dem instant bi ne sama xarit yëpp fa nek ku nek mi ngi andal ak couple mais wi yaa mën a sagal yo xam nga bu baax ne man dama la bëgg té ñu bëri ñi ngi wax naan ma yow ya bëggoma mais man xam naa ne yow ya, dama bëgg ma li may def ni yëpp dang koy def ni rek quoi mais du mbañeel quoi nekul ne dang ma bañ mais sutural ma nga sagal mu yow tamit nañu ànd ñëpp wax nañ ni do ñëw mais nañ dem dimbalé ma nga sagal mo yow ela yow hmm? wala dafa am gàllaaj booy tese. bi ban gàllaaj laa tese ah. yow de boo waxee ba jëlee ma fi ma yow ma te bul wax loolu waay dimbale ma xoolal man maa la ko ñaan. xale bi jugal. ñu jàppale ma nga tutural ma. waa jugal toog. mais dañuy dem. waa jugal toog. ci ko gis nga. ñu di baax na di mën mën nañ àndal ak lii quoi. sa morom. lay xaar. teeku ndax moo ma kaw ba suuf. Ya, non bébé yow xool nga bu baax li ngay wax. xool ka day tax ma wax la yow war nga jàkkaarloog man ma tuddal beneen góor. mais yow mat la no non attends yow xoolal li ma may dund ak yow xoolal li ma la nangul ak fi ma jaar ak yow tamit. mais Basi lu toll ne 31 10 000 francs daf maa solal. ok d'accord léegi yow lebal ma quoi comprendre nga man bu feet yi passé lépp loo ma wax man dinaa essayer di euh, jënti loolu fay la jàppale ma nga sagal ma. Eh, yow sa lebal ma nga toll damay laajte. mais bébé suturaal ma yow tamit. gis nga moom rek laa topp di xaar mu ñew ma genn dem. be mo nga genn ni bàyyi ma fi quoi and ak benen góor. togal gàdde xalé wala nga anda xalé dem ni bakkan bi mako ko c'est vrai faire la santé. mais li je importance maa ko de Je ko bi sama mais c'est pas possible ça mais booy. si la nga nekk yow. xamoo lu mu fi def. yow la fois passée fii nga ñëw dem jël sama xaalis lu ma leer la sa gëléñ ko dem jox ku loxo sa bi bu def. xamoo lu ma fi def. mu ko ñu nuyu ñu lu neex. mais nuyu xam nga luy loolu. mais yoo xanaa yow waloon génn. man mii wecce bi ma joxoon sa moto laa ko defaree ñëw kuul. damay génn damay am na évalué. métal tey boo ko dégg boo ko gisee rek nga ko dégg yow mais yaay ki génn yow néeg bi doo ko génn maanaam damay dem wala di def quoi que ce soit yaay kii yow eh, da ngay toog pour nga déggee ko noonu quoi yow nekkoo kuy génn néeg bii da gu bari. lan mooy lee poobal. moom luy loolu. ma ko xamoon naa ma ko laaj. lu neex. wacce boutique ba nga jënd ko mënu nekk bu boobaa dama la ko tegal ci gaz yu bëri na naa la koy tegal leera nga bëgg këriñ bu manqué de na kool bu bëri dindaale tàngal Balla Gaye mais man kii daf may faj nee ma les poobar laa bëgg ay nuy blanche waaye yooyu loolu ñu amati fii yow bandi woo di nga la nekk waga ngay bandi bandi wuy rek ma yow ko fi fekk yóbbuñu ko tey moom vraiment dama kontaan ci jàkkaarloo bi ma jàkkarloo ak yow. ndeysaan. Ah, dama xiifoon lii. te yow xam nga ni man yow rek laa bëgg. nekk ak yow moom a gënal lu ne. ba tax na tey bëggoon naa vraiment ñu neexal ko bu mu neex waaw. tey nag moom loo defoon rek ci yow la xam nan laay njëkk a def. Mhm. xaaral nii laay def. Hmm? te di ko xeet teel ma walla xoola man awma ci yow sago loo bëgg ak foo ko bëggee ak nan nga ko bëggee ma defal la tigata man dama laa jébal sama bopp léegi man sànq da nga ne dañ ko war a neexal ban genre neexal lañ ko war a neexal waaw mais neexal c'est parce que dañ ko war a neexal déedéet yow kay àggalil wax ci. chéri tey da waa da ngay déglu chéri tey da nga ma war a mën a wala wala wala wala ba ma nooy nepp waa du ma def la dañu kànje waaw ba pare ëf ma ci air bi ma def ma dox sama dox loolu de aay naa ci ah kon kay gaawee ma nag fu mu ne nii moom danga maa war a gaawee rek. léegi xam nga laa bëgg wax ji nga leeral ko ba mu leer naa ne nga jaar ci digg bi parce que man instant bi moom. Ah, chéri nag yow danga dof wala boog yow lan la quoi lan moo la lan moo la. maanaam damaa déggul daal. kon danga bëgg ma leeral la wax. damaa bëgg nga damm yàpp bi. ah kon neex na. Mm-hmm. damaa bëgg nga tëddee ma tey xoolal mëleñ mëleñee ma. <laughs> xoolal yóbbu sama bopp bi góos mbaa nga yóbbu yow lu la neex def ma pare na. yow daal ci la des daal. dindi chemise maa ngi nii. summi summi chemise bi na na dindi. ah yow dindi noo ma chemise bi yow tamit. Ah, non dindil ma ko rek ma xam ne yàkkam. Eh, waa déglu ma xoolal. gooto gooto ma xoolal bi yow tamit. dindu ko rek ay dindil. yow mais li nga nar. non dindi chemise bi. li nga nar de waxoo waaye nag loo xoolal loo nar lu ne rek. maa eh, xoolal wax ji daa bari dindil chemise bi. waaw chérie mooy wax lan. Ah, ko rek ah tamit yaa ah, dindil affaire ah, yow. naa yàkkamti woo. ba yaa yàkkamti waaw tuuti jëf ma bi ma tegal la ko fi. <laughs> léegi li nga ma li ma la wax wala boog yow amatoo noppi ah, noppi garmi yi waxaatal la yow tam waxaatal. damaa bëgg nga tëddee ma mëleñ mëleñee ma yóbbu ma gauche yóbbu ma droite en bas en ah, loolu daal nga bëgg. bee bu ma yërëm. tey la 31 décembre daa war a neex. xam nga la laa la nga may saf ci kën jaas nii yaa ngi may dégg est-ce que yaa ngi may dégg laa wax. waaw yow. wuy ma eh xoolal. ci fi indi eh, déglu ma xoolal li ngay wax yëpp wax nga ba pare ma lay déglu damaa bëgg nga tëj sa génn yaa ngi may dégg pour yéen daal jigéen jigéen bu ngeen gis rek tëddee ko daal loolu yéen seen bopp yi loolu moo ci nekk. yéen eh eh non gémmiñ ma wax ba pare dangaa wax ma déglu kon su may wax damaa bëgg nga tëj sa gémmiñ yaa daal. jigéen ñi bu ku ngeen gis rek seen xel bi daal naa ko tëddee rek yéen daal loolu loolu loolu loolu daal mooy seen xalaat eh tu la ferme tëgge sa gémmiñ ma wax sànq ba ngay wax dama tëj sama gémmiñ di la dégg kon su may wax da nga naan mu yaa may dégg pour yéen ku ngeen gis rek tëddee ko ñàkk fayda bay bëgg a dee yéen daal man man daal dama laa war a tëddee yow ah? kon yow xanaa li ngay woote nekkul ci eh wuy ma xam nga la laa bëgg. fii xool bàyyi sa wax ji. wax ju eh yow munoo tëj sa gémmiñ. mais yow dafa mel ni kafoo de. waaye yow yéen pour yéen jigéen bu ngeen gis rek nañ ko tëddee yéen daal mooy la wala sa xaalis sagaru trente mille francs yi nga ma jox pour yow daf maa tiital. non du question ko loolu sax. déedéet ma la sa trente mille francs yi yi nga xam ne matul sax. sa set ah léegi eh. xam nga lan la xam nga lu guddal wax ci ak lu gàttal wax ji benn affaire moo fi am. danga may mën a defal li may li li ma war a defal nga defal ma ko li ma bëgg nga defal ma ko munoo ko wa nga wax ma ko benn yoon man ma dem sama yoon est-ce comprendre eh, ma sa moom sa bi jugal jugal nga génn ci biti. <laughs> du yombee noonu de. eh tu sors de ma maison génn ci damal nga seeti ko dama li nga bëgg damal nga wari ji ko ci biti mais du fii yéen daal pour yéen jigéen bu ngeen gis rek ngeen ne waaw kii moom. gis nga nak yow dama doon wax yow ci ñak ak teranga mais gis na ni yow gaynde gu degul jatt nga yow loy rapi rapi ni ma tay do ñew ñu neexal 31 bi mu jeex tak après anyway nga naan ma ay nangam sangam kañ nga doon gaaka yow eh jugal jugal nga genn kër genn sama kër jugal man mo jug man mané nga jug lève toi jugal nak yaa may déclarer eh mané yang nga jug jugal gennal keur gi gennal ci biti. jox ma sama moom ngay la li de duguna ba pare gisuma lan mo koy wat xana nga dem uti wat ko fenen mais bi mom res na ba pare. Hmm. ay la bi saw la sante 30000 francs yi. na la xamal ma xoolal mu ngi ni xoolal dugolal fofu nga denc. mais man eh. sama xaliss lekul <laughs> yaangi ngi nax sa bop de ma ne la yaa nax sa bop boy sama xaalis ci gémmunu gaynde la genné oui may xam nga lan laa bëgg yow. yaangi loxo bu dag rek mba bobu kat. déglu ma yaa may bëgg soof nak instant bi sama bob bi day metti dimbali ma rek mën nga jug wala mëno jug yow fi tay mëno fi am dara jugal jugal nga dem xooli ji ko feneen fii tey moom tey moom mooy loolu jugal rek. anyway am problème. day def ak say rasa nag. amul benn problème laate nga torop amu ben problème. c'est pas grave. ñak xorom bay bëgg a na la wor ni dal yaa ma yoreel sama xaalis. eh tu dégages te di ma ko fay ci nii wala ci naa. tu dégages. Eh, bébé dama tiit taxaw. Hmm, lan ngay tiit. bébé gis nga li nga sañsee. waaw. bébé dañuy bañ ñu génn xale jigéen ñi song la te duma leen mën a maîtriser. Hmm. bii da nga rafet mu tax dama tiit daal. yow soo waxee loolu mën na laa war a wax naa xoolal sa bopp yow. ఎవరికి మనం ఎవరికి sayang mau beri lokasi ini yang mau kepada fat beliau kamu lo kurti ah mon belle affaire moi comme ça que tu m'as défié pour qu'on soit ensemble non te ñu ma bëgg dama koy def rek sa expression lo bëggul sax hey baax na dégg bor la ma ko da koy def alors booy bi booy sa mbëtt pomiteer sànni naa yóbbu naa ko ba yaa nga romb monument de la renaissance te boo jógee foofu yaa ngi rond-point Yoff actuellement nii c'est fi nekk nii jaar ci lumière yoo xoolal miir fu lëndëm nekk jaar bon ay bu la gisee du gis dara yow ko seen ma ne bàyyi ci des na ko bon bon ma dimbali bu ma eh deh ci asio nak mo yoro bu nana nana pour ataaya la yoo xam lu ataaya oh ma am problème loolu quoi xam nga yow yaa woon tey jii nana la neex sa nga yëgoo quoi man mun naa ko ma problème yooyu da nga pare pour yëy naa la boole ak ñoom ah. non jarul nga koy boole ma ko soxla léegi dafa am lu ma war a léegi. ok sa téléphone la ñu dox. man jigéen laa nag war naa sama bopp man ban ban saaru doom laa wan. is wi lu mu dugg is wi xaw ma man man ba xam man est ce que yow man bokk naa ci réew mi sax ya ni ñii rab da koy def de ay xaaral sax ay pétale lay dem taali wala ku ku ma gis ñaari couple ma yàq ma. soo ko laajee mu ne moom la bëgg suñu ko andilul moom du dundee da fa xam ki mu doon ci moom yenn saa